ab nit ku ko jàngal rek de xanaa nit kooku moom xanaa mënul def lu mel ni alxuraan xanaa bokkul ci nit ñi de waaw naka la nit di jàngalee dara nga def ko waaw te moom mënu koo def wala nit ñëpp buñ dajee woon mënu ñoo def lu mel noonu xam nga ne waxuñ dëgg de alxuraan su doon ci nit la jógee kuran bu nit ñi dajalooyee danañ def lu mel noonu de waaye alxuraan daf ne yéen ñëpp bu ngeen dajalooyee dimbali ko jinne yi du ngeen mën a indi mukk ñetti laay waa yu mel ni inna ataynaaka muy saar wi gën a gàtt ci alquran ñetti laay rek moo leen koo defar ba léegi kenn mosu koo defar loolu wane ne nit jàngalut ko ko rek laa wax de waaye ñoom ay dof lañ xaaloo wax nañ ne laalloo amaana yonent bi min safari ba mu tukkee ila saami dem saam waa ànd ak baayam abu taalib ci la jàng alquran waxuñ dëgg ndax yonent bi yàggul foofu naam waaw waaw annabi yonente bi sallallahu alayhi wasallam lamma balaga ba mu jotee isnay asra aman fukki at ak xam nga boobu ndaw la xaraja génn na bii ak moom abu taalib abu taalibin ila saami jëm saam ba mu amee fukki at ak ñaar ànd naag abu taalib dem saam falama qarabu bañ jegee mina saam si saam xaala wax na la woñal ko ruhbaanu labbe yi bañ demee labbe bi daf koo gis na ko irjaan dellul baasal xulaami ci bela xale laa yaraaw bu mu ko gis al yahudu yahud yi foom ñoom usudun ñu añaan lañ fa yaqtuluunu dañ ko rey faraja mu dellu bi ci mu abu taalib waaw ba muy dem rek la ko labbe bi gis wax abu taalib labbe yi ne ko delloo ko dellool xale bi ndax xam nañ ne mooy yonantu bi yàlla façon yoon nii mu jëg jamono ñu ne ko delloo ko bu ko yahudi gisee danañ ko fexeel pour rey ko ndax dañoo añaan waaw te li nga xam ne moo di yonent bi yàlla nar a yónni mu jeg jamono Abu Taalib delloo ko ndax fi tilkal muddati ci boobu la diir yumkin dana jàpp ne ne taallama mu jàng al Quraan bi daal Quraan min axbaari yahudi ci fóode yahudi fi saami ci saam ndax diir bu gàtt bii yonentu mën na cee jàng al Quraan ji yéeme ji waaw jàngee ko ci fóode yahudi nekk saam ndax loolu mën naa nekk xam nga ne mënu nekk bal yahudi ñoo gën a bañ lislaam gën a bañ yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne ñoo ko jàngal alquran danañ ko wax ne ñoo ko jàngal wala boog ñu jéem a indi lu mel ni alquran warul ko gën waaye ba léegi mënuñ ko kon kay yow di jàngaluñ ko ko ndax bu ko yow di jàngaloon danañ ko mën rek laa wax de ramawu sànni nañ ko bi saxaafatin uxra ci beneen wax ju suufee ñu ne kaana nekkoon ak xaynun waaw ak jaam yu xaaru lahu jabru ñu ko doon wooyee jabru fi makka makka la dëkkoon jabru ruumi ma nga woon makka cosaanam di ruum xëynun jaam la goo xam ne nasraaniyun chrétien la woon xanaa jàng naal kutuba saabiqa téere jiitu waaye nag dégg doon arab dégg nga téere jiitu yëpp jàngoon na ko moom jabru moomu wakaana nekkoon na nag yominu di gëm bi nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi feeñee jabru daal di ko gëm kaana nekkoon na isa statal bu tatee isaayitu qurayshin loru quraysh ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi yu sabbiru mu di ko muñ loo way sajjuma mu ko encouragé wa yaqulu loo mu naan ko al anbiya yonent yi qabla ka njëkk la hakaza nii lañ meloon kaana nekkoon na yu faalu ñuy hakaza lu mel nii kaana lañ nekkoon yu faalu di def biim ci ñoom waaw waaye nag mënu woon a wax ak yonent bi direct firi waxam di ko firi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu Quraysh loolaan yonent bi ba lor yu metti jabru mu daan ñëw di defal yonent bi di ko encouragé di ko dénk mu muñ ne ko yonent yi la jiitu woon nii rek ne leen lañ leen leen def yu ay du ma ngay dëgëral a rasul wa waral kaana nekkoon na istadal bu tatee bii ci yonent bi ali zaytu zahaba dem na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa jalasa mu toog xendoo fa jabru moomu limaa yu ni ngir lim koy métti wéttali min kalaam yi ci waxam loola waral yonent bi buñ ko loraan ba lor yi métti daraan dem toog ak jabru bu toog ak jabru rek waaw jabru di ko defal di ko nettali yonent yi jiitu woon waaw lor yi lan daj waaw ak métti yi lan daj ngir mu mën a muñ moom yonent bi sallallahu alayhi wa ndax jëlewul ko lu may ci téere yu njëkk ya waaw ah fa xaaloo xéféri màkk yi naa raf naa xam nañ alaane léegi mu ne ne taallama fan la jàngee Muhammadun Muhammad hada alquran bi la alquran ñu ne waaw kay nekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaam bi la moo koy jàngal alquran min hada alqayni ci bi la jaam wal qaynu te jaam boobu laa yeen tuq mukk bi arabiyatin ci arab laa du mën a ñàkk la mu maa ñeel leen ñoom ñaar min tarjumaanin waaw ku firi wax jële jaam boobu mënut wax arab dégg waaw waarum la woon moog yonent bi seen wax foo am ku ko traduire te alquran kat ci arab la wàcc fasaa lool lortuloo arab yi waaw kon naka lay waaw jàmm di jàngale yonent bi wax ju fasaa ji nga xam ne bu nit ak jinne yëpp dajee lu mel ni moom xam nga loolu mënu nekk de bal jàmm boobu bu ne moo jàngal yonent bi alquran ji yonent bi di wax alquran konoon du ko gëm waa ndax dafay xam ne moom moo ko raw moo ko jàngal waaye ba mu toppee yonent rek loolooy wane ne jàngalu dara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ñu ne innama yuallimuhu naka dana jàngal yonent bi alquran basharun mindeef lisaanu lazi lak ka nga xamne ne yuriduuna danañ junj ilay dem ci mom a ajam yu a jam la kiñ wax ne mooy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku degul arab wa hadha alquran ji nag moom lisaanu arabiyin langu arab la mubin bu leer te yéen dañ na len andi len ci lang arab rek lu melni ne ñetti laaya mun len ko andi kon xam ngeen ne wa wax ju rafetee nii ci arab kuul déggul arab mënu koo bind kon lii jugewul ci waw jabru mom de waye ci yalla rek la meuna a ci gatal dal bu ron amna min def mo xamne mo jangal jàngal bi alquran su boba nit ñi dañu meuna andi lu melni alquran ndax lu nit def rek nit man nako def wala nit def lu ko raw waaye alquran ba nga xamee ne nit ak jinne buñ won meun ñu andi lu mel ni meun ñu andi sax ñetti sar yi gëna gatt ci alquran dégg ñetti laa yi gën a gàtt ci alquran am moo di saar saar bi gën a gàtt ñetti laa la mënuñu woon di benn saar loolu war na yonent bi jëlewu ci alquran jëlewu alquran ci nit de bu ko jëlee ci nit yéen ay nit ngeen fasaa ngeen dégg ngeen arab ay yaaram ngeen indi leen lu mel ni moom rek waa mënuñ ko indi ba pencam yàlla duñ ko indi kon maa tadabbaru setantal ñu alquran alquran bu ne afalaa tadabbaru na manax duñ setantal alquran alquran bis buñ selentane alquran danañ gëm yonent bi haasi suratu bi la saar mu di lan am makkiyatun ka jug makka la suratul anam moom mooy saar bi nga xam ne nasalal wàcc na maratan waaye danañ benn yoon saar yëpp dañ laan wàcci nànk-nànk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par laaye waaye alquran moom benn yoon la wàcc rek de lu may juróom benn laaye yéen limoon waa yooyu nga xam ne madina la wàcc yooyu moom waaw yéex naa wàcci waaye lu loolu rek lu dul juróom benn laa yooyu ci la na am benn yoon la wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu wàccee nag fekk yonent bi mu ngi sol mu ngi war at baawu yonent bu daan wax yu gi di wàcc ci moom at baawu la daan war ñaareel at baawu mooy moom rek ko attan waaye keroog ba nga xamee ne saaru la naam wàcc na fekk yonent ngi ci kaw at baawu at baawu dafa daanu xam xaala mu daal di wax nag rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne subhanallahi tudd na ma sellab yàlla alazimi bi aji màgg subhanallahi alazimi tudd na ma sellab yàlla mu màgg ma yonent nga war a at baaw yàlla wàccee ci moom la naam at baaw daal di daanu xam ndax atul yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ndax saar ba yonent ne subhanallah haasi suratu saar shaja ah, gunge na ko sabuna alfi malakin juróom-ñaar fukki junney malaaka lawum ñeel na leen sa jëruñ coow bi tasbih ci sa baal yonent ne subhanallah saaru lanaam ba muy wàcci yàlla nga ko booleeg juróom-ñaar fukki junne malaaka ñu di ko gunge ña ngay sabbal ci kaw saar wi noonu la wàccee rek la wax de mel ni buur buy ñëw <coughs> te moom dafa wàcce ndoor <coughs> mel ni buur buy wàcce rek laa wax de juróom ñaar fukki junni malaaka waaw ñoo ko gunge dégg nga dégg nga su ko fala ma xaraa ba mu jàngee saar wi annabi yonent bi sallallahu alayhi wa amara digle na bi kitaab bi kitaabati a ci bind ko kullan lépp fi leelatin waaye datin ci benn guddi dégg nga ba nga xamee ne nag <clears throat> yonent na saar wi yëpp mu ne nañ ko bind ndax màggaayab saar wa ñu daal di ko bind nag moom mënu woon bind waaye dañ ko doon bindal alquran <clears throat> saaru laraama ngoogu benn yoon la wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu may juróom benn laaya mooy ñu waa ñetti laay wa maa qadaru ak yeneen ñetti laay qul taalaw yooyu moom Medina la wàcc mais lenul moom rek Makka la wàcc yàllaa ngi ebal nag juróom-ñaar fukki junne malaaka ñu gunge woowu am na benn laay boo xam ne moom fukki junne malaaka ñaar ñu ànd ak moom mooy wa indoo mafaatihul xayb laa ya'lamuhaa illaa huwa bañ koy wàccee guddi la dégg nga rek laa wax de xaala wax na rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ngëneel yu bëri ci sootul la naa am moo tax waaw dinañ ko jàng ndax ngëneel yi ci nekk yonent ne man xaraa ku jàng haaji suura bi la saar mu di lana am wakkala wakkil na laaw yàlla bi ci moom arbaina alfi malakin ñeen fukki junne yi malaaka yaktubuuna ñuy bind lawo ñeel ko misla ibadatim lu mel ni seen ak jaamu ilaa yawmil qiyaamati ba bis kon lana ama ngoogu ah xanaa ku jàng saar bi benn yoon xanaa doo dugg sawara kon ndax yonent nee na boo jàngee saaru lana am <clears throat> yàlla boole laak juróom-ñaar ñeent fukki junne malaaka yoo xam ne ni seen jaamu yàlla yëpp yow lañ koy bindal ba pencam yàlla rek laa wax de ba dee ñu ngi lay bindal jaamu yàlla ñeent fukki junne malaaka xam nga ne kooku bu dee mu ngi mel ni kuy dund li ci gën a neex nag mooy du saar wi lépp bu saar wi lépp sax mu xaw a jafe waaw waaye ñetti laa yu njëkk yi rek lañ wax ñetti laa yu njëkk yi sootul anaam kooku bëriwut mooy alhamdulillahi ladi خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يتلا يويو yooyu xam nga في ñetti laay yi njëkk ci sootul la naam mooy lu commencé ci alhamdulilah ba maa taxi boona ay wa déglu leen jël leen boo ko jàngee yàlla boole laak ñeent fukki junne malaaka seen jaamu yàlla yëpp danañ la ko waa bindal ba pencam yàlla ñaan ngaa ngoogu jël leen ko ñetti yoon nga koy jàng nag saa yoo xëyee daal jàngal ñetti laay njëkk sootul la naam saa yoo xëyee na ko jàng waa ñetti yoon muy alhamdulilah ba maa taxi boona bis boo ko jàngee yàlla boole laak ñeent fukki junne malaaka seen jaamu yàlla yi yàlla dina ko bindal ba pencam yàlla rek laa wax de amul foofu nag wayen tur dana wàcc malakun beneen malaaka mina samaay saabiati ci asamaan juróom-ñaar maa waan nag asamaan soosu mir sabatun ab xet min xadidin bu jugee ci weñ faysa araada bu bëggee a seytaanu an yu sa mu jax-jaxal loo ñeel ko darabahu malaaka bi dóor koy yet wa fa yakunu mu nekk sabuna hijaaban juróom ñaar fukki kiiraay baynoo diggante moo benn seyaatin ak diggante seytaane yi ñetti laa yooyu waxuma saaru yëpp sax waaye ñetti laa yooyu boo ko jàngee yàlla dana hebal malaaka bu jugee asamaan dina garde yore ab mbool den ab xet bu la seytaane bëggee jax-jaxal wala mu dugal sa xol bi lu baaxut rek malaaka bi door ko xelwa sa diggante seytaane juróom-ñaar fukki kiiraay dinañ ci nekk benn kiiraay gu ne mënu koo dog loolu yàlla dana la ko defal boo jàngee ñetti laa yooyu wa yawmal qiyaamati nag bis penc isa boñ sa nem dekk na nem dekk nañ ko min xabri ci bàmmeelam yaqul dana waa rabbu borom bi ne yaa insaanu e yow doomu aadama bi doon jàng sootu lanaam yow mi doon jàng laa sir doxal fi zilli si sama ker yow ma laa zilla bis nga xamante ne ker di am illaa zilli lu sama ker wadxul dugal jannati sama aljana washrab naanal minal kawsari ci kawsara fa ante wa abdi sama jaam xaqan ci dëgg waanaa man rabbuka maari sa borom wa loolu la yàlla di wax bu yemal xiyaamatee yàlla ne yow sama jaam doxal ci sama ker benn keraam mu tey lu mooy sama ker लेकल समय मेनियत मेनियत हाल जने लेकल नारल ची कौसर संगुची सल सबील या सम जाम टिगी मा हिस बरम लुन ले यारन जो जाम बोबू आ कम ने लाय नेत लाय ने ली बरीना दलन को जांग लुन टेल टेल वसरासु आयातिन नेत लाय मिन अवल हाजी सूरत सिंजल बेन बिरसार मो अलहमदुलिल्लाह बमा तक्सीबोना <clears throat> मन करा कुको जांग कुल यौम बिसु nga jàng ko ñetti yoon asa moo musul nu ko laaw yàlla mina shayaatin seytaane yi wa kataba bind na la ñeel ko adada ma nazala limam la wàcce mine ma suurati ànd ak saar wi minal malaayikati ci malaaka yi sabina alfan juróom-ñaar fukki junne riwaay yi ne ñeent fukki junne waaye bii moom def juróom-ñaar fukki junne malaaka la ko yàlla booleeg ibaadaatim seen jaamu yàlla ya ilaa yawmal qiyaamati ba bis penci waa danañ ko ko bindal wala yam naa woon du ko teree min duxuli jannati si dugg aljana ilal mawt lu may dee kon ñetti laay njëkk soota la naama ngoogu lu bëri nga la boo ko jàngee ma di alhamdulilah ba maa tag boona comme niñ ko jàngee léegi boo jàngee ñetti laay boo xëyee nga jàng ko ñetti yoon yàlla daana juróom-ñaar fukki junney malaaka ñu ne ñeent fukki junney malaaka beneen riwaaya waaw ñuy jaamu yàlla seen jaamu yàlla yëpp yow la ko yàlla di bindal ba jëm yàlla xam malaaka mu wàcc jóge ci asamaan ne cëpp yore am mbool de nag pour garder la seytaane bu la seytaane bëggee jax-jaxal rek waaw dégg nga malaaka bi daal di ko dóor mbool de nga mu sori la sa digganteeg seytaane juróom-ñaar fukki waaw kiiraay dana ci nekk du la mën a jege bu yomal xiyaamati ñëwee yàlla ne la yow sama jaam bi doon ñetti laay njëkk sootu na naam doxal ci sama ker lekkal ci sama meññetam aljana naanal ci ndoxam kawsara sangul ci sa salsabil yàlla sama jaam tigi may sa borom laa yaa ngoogu dégg lii laa mos a wax benn bis gaa yi ah, ma ngay kat ma ne leen maa ngi ànd ak malaaka moo xam ne seytaane mënul maa jege waaw ñu ne ma ngay woote maqaama fekk waxuma leen lu may ñetti laay nekk si woote naa am jàng naa ko balaa may dem ci mboolem seytaane mais seytaane yi mënuluñ man dara loolu laa doon wax. ana ma ngoogu bu ne alhamdulilah aji sax la ñeel badaa commencé si suuratu bi la saar bi ajil kalimati ci bi suratul an'am baat bi la ci la commencé muy alhamdulilahi te alhamdulilahi saar wu ko commencé rek xamal ne xiyu àddina ak alaxira mu ci saar woowu kon dee leen bàyyi xel suratul an'am rawatina ñetti laay yu njëkk wasu ukulu saar badaa com badaa na ko allahu yàlla bi ajal kalimati ci bile baat laa bu dee du a ñàkk an yastakmila mu matal fiyaa ci moom nay ma dunya xewali àddina wala axirata ak alaxira saar woo gis rek mu commencé alhamdulilahi xamal ne xewali àdduna alaxira daje nañ ca ndax mbuut mi nekk ci baat boobu hiya moom baat boobu commencé na fi awalil fatiha ci njëlbeenu fatiha wa fi awalil anaami ak si njëlbeenu lanaam wa fi awalil kaafi ak si njëlbeenu kaafi wa fi awalil sabain ak si njëlbeenu saba wa fi awalil fatirin ak njëlbeenu fatir saar yooyu mu di fatiha ak lanaam kaafeeg saba ak faatiri juróomi saar yooyu alhamdulilah lañ commencé nag laa wax de waaw loolu nag mut mu réeng ci bu ne alhamdu melaw yi aji rafet alwasfu melaw bil jamili ci lépp lu rafet saabitun aji saxla li laa yàlla yàlla alhamdu mooy lan mooy mboolem tagg bu rafet mboolem ak mat mboolem ak kawe kooku yàllaa ko moom dégg nga rek laa wax de laam gën am na lu ci sëriñ ba waaw moo tax gaañu ne alhamdulilah walhamdulilah waaw ñaari laam yooyu daa am nañu ci wax tagg lillahi ñeel ne yàlla tabaraka ba niyu wa taala kawe de mboolem ni tagg bu rafet rek moom alhamdu cant kulloo lépp lillahi ñeel ne yàlla laa li xëyri ñeel keneen ku dul yàlla mboolem xeeti tagg yi yàllaa moom waaye amut keneen ku ko moom de <coughs> naam waaw ida kamaka bu la tere de insaanu doomu aadama tashkuru da nga ko gërëm wa taxmudu nga sant ko wa iza akramaka bu la teralee malikun buur tashkuru nga gërëm ko wa taxmudu nga sant ko re ndax laa yashkuru laa du mën a sant yàlla man ko xam ne laa yashkuru du sant mukk annaasa nit ñi koo xam ne lu la defal doo ko sant yow boo sant yàlla yàlla bëggut <clears throat> ah kon kay fa yakun naka lay nekkee alhamdu cant lillaahi ñeel yàlla wax doo moom dong bu nit war nañ koo sant kon naka la ñuy waxee yàlla rek la war a sant mu ne cant yëpp la koy waral xéwal moo ko waral bu dee sant gi yàlla sant boppam kooku am melo la yàlla tagg na boppam moo melowo melo wu rafet woowu bu dee nag sant gi jaami santante waaw la waral mooy jëf te jëf ji nag ko ne xam ne si dëgg-dëgg jëfi yàlla la waaye du jëfi jaam moo tax cant gi yëpp yàlla rek ko yàlla alhamdu cant kulloo léppam lillaahi ñeel na yàlla alhamdu cant isa kaana bu nekkee lillaahi ngir yàlla lillaahi ñeel yàlla foo moom lillaahi ñeel na yàlla amul sikk sàkk wa isa kaana bu nekkee li xeri lillaahi ñeel dul yàlla foo moom lillaahi yàlla ko moom ndax jëf yàlla rek la moom ngeen di sant noonu dégg nga jaam lu mu def xamal ne loolu yàllaa ko def ndax yàlla bind jaam bi bind jëfam wallaahu xalakum wa maa taamaloona su xam leen jëf yàlla ngeen sant moo tax sant benn sant melo yàlla wala sant jëf yàlla rek laa wax de kon sant boobu yëpp yàlla ko moom imma benn an yakunu mu nekk moom sant wasfoo di melo yàlla aw fi'lu wala muy jëf yàlla <clears throat> ñeenti sant am hamdul abdi sant ab li rabbi ñeel boromam koku yalla ko mom yalla defal nako lu baamu sant ko wa rabbi ak sant yalla li di ñeel jam, jaam bi def lu baax yalla gërem ko koku jëf yalla rek lañ sant fofu wa abdi ak sant jaam li abdi ñeel jaam jaam defal la lu baax nga sant ko wa santo lu moy jëf yalla wa rabbi ak sant sant borom bi li nafti ñeel bopam de wa koku yalla ko mom ndax melo yalla la kullu haza lii lépp lillaahi ñeel na yàlla tabaaraka ba nuyu wa taala kawe na nee ma baax na borom bi moom wa nee ma baax na an nasiru aji dimbale ji lépp lu baax lu jaam def rek yàlla ko dimbale ba mu def ko kon boo ko santee dëgg dëgg yàlla nga sant alhamidu aji sant ci allah moo di yàlla wal mahmudu lañu kañu sant daal allah yàlla rek la de waaw nee ma baax na abdu jaam bi ayuba moo di ayuba kooku yàlla sant na jaam ba waaye alhamdu aji sant foofu allahu mooy yàlla wal mahmudu kañ sant abdu mooy jaamam neemal mawla wa na nasiru yàlla moo sant boppam la sant neemal abdu innahu awaabun kooku moom yàlla sant waaye jaam ba la sant fal kullu lépp na lillaahi yàlla ko moom ndax benn muy sant mela yàlla war a jëf yàlla alhamdu jaam bi yaqul dana wax ne alhamdulilah maa ngi sant yàlla kooku jaam sant yàlla de bu yàlla dafa lay nga sant ko yaa ko sant dégg alamidu aji sant foofu alabdu mooy jaam wal mahmudu kañ sant allahu moo di yàlla sant bi lillahi yàlla ko moom de ndax moom nga sant way za hamida ndem sant na abdun jaam abdun jaam fal kullu lépp lillahi ñeel yàlla tabaraka bani wa taala kawe na ndax jëf yàlla rek ngeen di santante waaw sant yàlla ngoogu lépp yàlla ko moom benn muy sant melawam wala muy sant jëfam de waaw zakara tudd na ismallahi tur yàlla allazi gi nga xam ne woo moom azamul asmaa yi moo gën a màgg si tur yi waa loolu nag junj la waa naa ko romb rek laa wax de tur yàlla wi gën a màgg si tur moom la yàlla tudd fii allazi mooy buur bi nga xam ne xalaqa bind naa samaawaati asamaani juróom-ñaar wala ak suufi juróom-ñaar yàlla bind naa asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar lu tax mu tudd leen waaw te moo bind lépp mu ne xasahuma jégleel na leen bi zikri ci tudd li annahuma ndax ñoom ñaar muy asamaan ak azamul maxluqaat yi moo gën a màgg ci mbindeef yi li naasina ñeel way xool yi ba mu tuddee tur bi gën a màgg ci tur yi daf koo lënkaleeg mbindeef bi gën a màgg ci mbindeef yi mbindeef bi ci mbindeef yi nga xam ne ñu ngi leen di gis muy asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar moo tax ba yàlla tuddee tur bi gën a màgg ci mbooyam tur yi waaw lëkkale ko waaw mbindeef gën a rëy ci mboolem mbindeef de wa jaala bind na moom yàlla azulumaati lëndëm ya wa nuura ak leer kullu zulmatin bépp lëndëm moo moo xam lëndëm ak réer la wala lëndëm ak kéeféer wala lëndëm ak guddi yàlla moo ki ko bind leer gu nekk wa nuurin leer gu nekk yàllaa ko bind leer ak xam gëm yàlla wala leer ak bëccëg wala leer ak lamp wala leer ak mën a gis yàllaa ko bind أولا غنين ظلمات الكفر لن مي هيفير والنور الإيمان أغلير كم يالا موم لا يالا بند الله يالا هو موم الذي ما كان خمنا خلق بننا السماوات السمان جروم نار ولا رك سوف جروم نار تراهما ngeen man leen a gis wa xalaqa binna zulumaati lëndëm yi wa xalaqa binna annuura leer lëndëm nag yàlla daf koy def mbooloo leer mu def ko benn jamaa def na jamu def na mbooloo azulumaati lëndëmi wa afrada wéetal na nuur a leer li kasrati asbaabi zulumaati ngir bërik saf bi lëndëm lay waral lëndëm dafa bëri moo tax yàlla ne bind na ay lëndëm leer moom benn rek la gëm yàlla koy waral moo tax mu def ko benn de wala nga ne dafay junj ne jullit ñi nga xam ne ñoo am leer benn bopp la ñu war a doon waaye kéeféer yi nga xam ne waa ñoom ñu ngi ci lëndëm ak kéeféer ñoom taxsabuhum jamii'an wa quluubuhum shattaa da nga yaakaar ne benn lañ fekk ñu nga tàqali ko rek laa wax de summa allaziina topp gaa ñi nga xam ne kafaroo wedd nañu maa qiyaami haazaa daliil ànd taxawal bi rek tegtal ñi nga xam ne weddi nañ yàlla te am na lay wóor wóor na yàlla am na yaaduruna danañ xemale bi rabbihim seen borom ñooñu danañ yemale yàlla ak leneen yaa di doon mooy sawuna danañ yemale bi rabbihim seen borom xeyroo ku dul moom ñooy bokkaale yàlla ak leneen di yemale yàlla ak leneen fi gi ba xéeféer yi dañuy yemale yàlla ak leneen lu dul yàlla <coughs> te nag loolu warul ana lu tax warul ndax moom yàlla allazi mooy ki nga xam ne xalaqakum bind na leen min tiinin ci ban bi xalki Adama bi xalki abikum te mooy bind na seen baay Adama Adama minu ci ban seen baay Adama yàllaa ko bind mu ban xam nga ne jël ab ban dégg nga mooñ ko melal ko ba mel ni nit ami cër waaw nga wal ci ruuxu mu soppeeku yàpp ak deret waaw xam nga loolu yéeme na loolu yàllaa ko def rek laa wax de yàlla mi def loolu te kenn mënul lu mel noonu kooku rek mooy seen borom moom ngeen war a jaamu waaye wut koo yemale keneen rek laa wax wala nga ne mbindeef yëpp ci ban la leen yàlla bindee ndax doomu aadama mu ngi juree ci jugee ci toqam ma niyu toqam ma niyu mu ngi jugee ci ñam yi nga lekk ñam wi nga lekk mu ngi jugee ci gàncax gi gàncax gi nga lekk mu ngi juge suuf si kon ñëpp ci waa suuf rek lañ jugee waaw ndax meññeet yi ñuy lekk rek loolu mooy ci la doomu aadama yi juddoo rek laa wax de yàlla mi leen bind si suuf soosu kooku rek ngeen war a jaamu waru leen jaamu keneen. su ma xadaa topp dogal na moom yàlla ajaran diir lakum ñeen leen tamutuuna dangeen ngeen dee xendanti ay bu jeexee waajurun ak diir musamman ba bañ sadd madrubun buñ saddeen doofu moom li baasikum mu ñeel seen ak dekk rek laa wax de yàlla bindal leen diir bu ngeen di waxtu bu jotee ak loo am am kaaraange loo am am sécurité dee dana ñëw de bu dee ñëwee du la muñal benn saa lu mu gàtt gàtt rek dina ko muñal waaye bindaat na diir boo xam ne ci ngeen di dekki bu waxtu woo jotee rek foo ngeen dekki waa taxaw ci pencam yàlla mu àtte leen ab kuréel mu dugal aljana ab kuréel mu dugal sawar rek laa wax de ñàkk laay ji am nañu ci réer ne doomu adama ñaari waxtu la am ndax yàlla daf ne suma xadaa ajalan waajurul musamman indahu ñu ne kon doomu adama ñaari waxtu la am waxtu woo xam ne ci la yàlla dogal ne ci lay dee waaw bu accident amut wala boog musiba daal bu ko rey waaye bu accident amee nag dana dee ci waxtu woo xam ne bokkut ak waxtoom moo tax ñoom dañoo jàpp ne nit buñ ko reyee waxtoom jotagut kooku mooy beneen diir bi xam ne accident ko war a ndog waaye waxtoom moom bu jotee mooy waxtu bi yàlla tëraloon kooku dana dee bu ndog ñëwee mu dee te waxtoom jotagut dañoo réer waxuñ dëgg laaj ji waxul loolu laaj ji wax mooy ñaari waxtu am waxtu dee beneen waxtu wi mooy waxtu dekk rek laa wax de waaw waxtu dee nag bu jotul baat àddina yëpp daje woon pour rey la munuñ laa rey waaw ndax waxtu woo jotagut waaye waxtu dee bu jotoon bu àddina yëpp da woon sofe la pour nga dund munuñ laa sofe foo dee ñëw la wax de su ma antum topp yéen ayyuhal kufaaru ee yéen yéeféer yi tam taroon yéen a ngi sikk te sukkoon yéen a ngi sikk fi baasi ci dekk baada ilmikum gannaaw bu ngeen xamee annoo ne moom yàlla ibtidaa moo commencé xalkakum bind leen wa man qadara ku attan alal ibtidaa yi ci tàmbali bind foofu moom aqdaru gën naa mën a mën ci ci delloo la de kéeféer ak ñu sàggan ñi dañuy sikk sàkk ndax buñ dee nga xam ne yaa ngi leen xool néew boo xam ne mënul yëngatu mënul wax mënul dara nga suul ko suuf suuf lekk ko mu maxe ba nekk yàq ñu ne waaw kawteef kii naka la ko yàlla di dekkilee xam ngeen ne dañuy wax rek waaye dekki amut ku dee rek jeex na yàlla ne déedéet xanaa gisu leen ne gàncax rek ngeen woon nekkoon ci suuf suuf ku la wax ne la mën na cee génnee loo xam ne dana dem ba di wax ba di noyyi di defar lu yéeme di tabaxi kër di defari avion di bindi téere waaw ñi ko borom xam-xam ñi naan ko buur wala wali yàlla ku la waxoon ne suuf danañ ci génne lu mel noonu xam nga ne doo ko gëm kon doomu aadama ci dee la yàlla dekkil ko kon bu jëmmam dee ku commencé lu amul woon delloo yàqu taw ko. yow xamu woon doon dara yàlla jëlee la suuf jaar na la ci gàncax def la toqam ma niyu def la lu mbot deret def la suuf defal lay yax defal lay cër bind la bind bu yéeme bi daal di la génnee nga nekk ab liir mu dina may kattan ba nga nekk waxambaane mu rey la kooku bu ne la mën naa la delloowaat ca na nga meloon nga war koo gëm rek laa wax ne ndax def na ko ba pare kon kéeféer yi ngi sikk ci dekk te xamuñ ne yàllaa leen sos ki sos kay war na laa a delloo boobu moom kooku bind leen allahu war a jaamu almaabudu mooy ku ñu jaamu almustahiqu moom rek a yelloo li la baadi jaamu fi samaawaati mu ngi ci asamaani juróom-ñaar wa fil ardi mu ngi suufi juróom-ñaar wala woowu moom allahu mooy war a jaamu fi samaawaati ci asamaan juróom-ñaar wa fi ardi ak suuf juróom-ñaar de yàlla ngi ci asamaan yàlla ngi ci suuf yàlla it mooy ki ñu war a jaamu ci asamaan mooy ku ñu war a jaamu si suuf de yàlla mu dana mu xam si rakum la ngeen nëbbu wa jaarakum ak la ngeen feeñal lépp yàlla xam na ko dara nëbbuut ko maa tusiroona la ngeen nëbbu wa maa tajaaruuna ak la feeñal yëpp yàlla xam na ko wa yàlla mu dana mu xam moom yàlla maa taksibuna la ngeen fàggu ay taamuroon la ngeen def min xayrin ci yiw wa sharin ak ay lu baax la ngeen def yàlla xam na lu bon la ngeen def yàlla xam na te dana ko fay de wa maa taatihim dikkalu leen alu makka ñooñ makka min ayatin ci benn kawteef min ayaati rabbim ci kawteef bi seen borom min alquran yi moo xam alquran la wala lu mën a doon illaa kaanu lu mooy nekk nañ moo war di di way dëddu ana wayis ko de yéeféeri màkka yi kaawteef gu yàlla wala mën a wàccee ci ñoom ñu weddi ko la alquran ju mën a ñëw rek ñu weddi ko yal nañu yàlla musal ci weddi faqad kazzabu weddi nañu bilaa ci alquran lamma jaahum ba mu leen dikkalee fa sawfa yaatiim xal si na leen dikkal an baawu ma mu jëg la nga xam ne maanaam waaqibu ma mu jëg li nga xam ne kaan kaanoo nekkoon nañu station di yee ci bii ci moom su alquran ñëwee ñu ñaawal ko ñaawal yonent bi waaye bis dana mu jëg lañu doon def ci lu bon ko gis de waa lañ doon ñaawal fa muy mu jëg ñoom danañ ko gisi mooy mbugalam yàlla rek foofu la leen mujjee boo ne awalam yaraw ba xanaa gisuñu ñoom waa Makka fi asfaarim ci tukki ñi tukki ila Saami jëm saam kam lu bëree bëri kasiiran lu bëri alak naa alak nañ ko min qablim njëkk leen min qarnin ci aw xeet ummatin aw xeet min umamin maadiya ci xeet yi passé makkan naa am dëgëral nañ leen entey naa jox nañ leen makkaan ak dëgër fi laa ci suuf bil xooti te mooy ñu may leen kattan wasaante ak wërsëg bu yaatu maa la nga xam ne lam nu makkin dëgëraluñ ko ay lam nooti joxuñ ko lakum ñeel la yéen yëfiri makke yi de wa arsalnaa yebal nañ asamaa tawba almatara tawba midraaran mu di aji dotteeku alayhim seen kaw mu ta taabian mu aji toftaloo wa jaal naa def na la naara sew ne ya te jiri mu di daw min taxtim ci ron seen i kër ya taxta masaakinim seen ron dëkkuwaaya fa alak naa um ñaarak leen bi zunubihim ci saw bu seen ak bakkaar ay bi takzibihim ci weddi giñ weddi alan biyaa yonent yi waan saanaa ñu sos min baadim seen gannaaw xarnan maas a xarina yeneen rek laa wax de buur man a xeeféeri màkk yi nga xam ne ñu ngi tukki di dem Saam xanaa rumuñ dëkk yu bëri yoo xam ne yàlla xalak na taamoon nañ kattan ci kaw suuf ak doole joo xam ne xeeféeri màkk yi sax amuñ ko mbooloo moomu doole jëleen yàlla mayoon ci yaram yéen xamu leen ko xalal jëleen yàlla mayoon wërsëgoo leen mayoon yéen xamu leen ko yàlla wàccoon ay taw seen dëkk ya naat gàncax gu bëri ñu tabaxi kër yu rafet kër yoo xam ne ma nga am piscine yuy daw ca tabaxe rek laa de waaye xewal googu yëpp bañ leen ko defalee ak ngi googu ñu weddi yonent yi gëmuñ leen dañ leen xalak indiwaat ñeneen de kon yéen it foofu rek ngeen di mujj bu ngeen weddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee ñeneen ëppoon kattan yàlla na leen waxuma la ak yéen rek laa wax de <clears throat> walaw nazzalnaa bu ñu wàcceewoon alayka ci yow kitaaban ab téere maktuban luñ bind fi xirtaasin ci ab këyit mooy raqin ab der kamaxtarawu comme nuñ ko sàkkoo falamasu ñu lamb ko bi ay diim seeni loxo kooku ab laxu moo gën a jot mi ne ay na wu ñu jàkkaaroog moom li àndoon ndax làmm an faa moo gën a dàq li chakk ñeel sikk la xaala kay mu wax la dina gaa ñi nga xam ne kafaroo bet nañu ne in haza déet lii illaa seexnu nu mooy mu di njabar mu biinun bi aji bér bér rek laa wax de mu biinun bi aji leer taxannu tan ngir dëng way naa tan ak ak weddi de <clears throat> yàlla ne kawteef taxut a gëm kenn xébéeri màkk yi bu yàlla wàccoon alquran ci asamaan def ko cib kayit wala cib dar mu wàcc ñu lamb ko xam nga lambu moo gën a wóor jàkkaarloo buñ ko lamboon ba yëg ne lii téere la bu wàccee ci asamaan li naan njabar la rek lii du dëgg Muhammad dafa njabar suñu bëdi rek waaye dara wàccut gi rek dëng waaw waqaalu wax nañ ñoom yéféri màkk yi ana lu tee ñu wàccee alayhi ci Muhammad ala Muhammadin ci Muhammad malakun malaka yusaddiqu bu koy dëggal allah jaa ana lu tee mu dikk malakun malaka mine samaay bu jugee ci asamaan <clears throat> yéféri màkk yi ana lan moo tee yàlla wàccee malaaka mu jugee ci asamaan ñëw ci dëggal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaala yàlla ne déet kay bu leen sàkku loolu de wala antal naa bu ñu wàccee woon malakan malaaka kama axtaraw comme nuñ ko sàkkoo falam yuminoo gëmuñ la qudiya kon ñu jeexal alamru mbir mi bi halaakim te moo ñaar ak leen summa laa yunzaruna topp duñ leen muñal dara yàlla ne déet malaaka bi wàcc rek halak leen ndax malaaka moom bu wàccee aaye bu ngeen ko gëmut xalakaane rek moo ci topp kon bu leen laaj malaaka moom kooku moom na mujj la jaa bu dikkoon al malaku malaaka la halakoo kon kay ñu halku ñoom ñëpp te xeetu yonantu yàlla du halak waa loola wara yàlla wàcci wun malaaka de yàlla na sax lu xamal ne malaaka wàcc na am Muhammad moomu ngeen sikki moom góor googu xamu leen lu mu doon rek laa wax de ndax walaw jaal naawu buñ ko defoon malakan mu di malaaka la jaal naaw kon kay danañ ko def rajulan mu di góor yàlla ne suñu doon wàccee malaaka sax góor lay doon amee bët nopp ak tànk ki loxo mel ni yéen rek laa wax de <clears throat> ndax kaw suuf ay nit a fi nekk moo tax bu yàlla yónni yónantu nit la koy def laay ju réengi joo xam ne man ngi leen ci ñu ne xamu leen dëgg-dëgg Muhammad mi ngeen nekk ak sallallahu alayhi wa lu mu doon sax xóorul leen ndax lu mu màgg-màgg bu mu koy yónni ci yéen nit laa koy def comme yéen su ma doon wàccee malaaka yéen dem yéen nit ngeen ku doon malaaka ba nit lay nekk comme yéen du ngeen ko xàmmee su boobaa ba léegi ngeen des ci sikk ga naan yàlla waroon naa wàcce malaaka fekk yàlla wàcce na malaaka de sikk gi ngeen am ci yoonantu ba xamu leen doyoom di laaj malaaka lu gën ma suufee maqaama yonantu yonantu naa kawe malaaka réere ngeen ko bay laaj malaaka pour mën a gëm su yàlla wàcce woon malaaka daf koy def nit rek comme nu mu defee nit yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi ngeen continuer di sikkati rek même sikk ngeen am ah azali sirrun góor la kabirun bu mag waaye aarifoon ñoom dégg nañ ko waazal malaku bi ne malaaka allazi bi nga xam ne talabu sàkku nañ ko law ata bu dikkoon la saara kon dana mujj rajulan di góor yanzurunu ñu di ko xool malaaka bi bu ñëwoon nit nit lay doon laa wuta du mën a ñàkk an yaati mu dikk ala surati rajulin si melo góor léete makkanoo ngir ñu jàppandi min ruyete ci gis ko ndax melo malaaka xattanuñ gis ko kon yàlla bu yebal malaaka daf ko yor andi mu yore melo nit waaw noonu la jibril wàcce woon xam nga ne jibril fees na diggante samaan suuf waaye wàcc na yore melow nit moo tax dégg yàlla moom melo yi waaw du ci moom lu ko neex rek mu jox ko melo wu ko neex moo tax buur gisam melo rek waaw xeeb borom melo wa mën ngaa gisam melo fekk romb na foofu rek laa wax de yéen loolu la yàlla di junju isan kon lam yàlla moo xamuñ ale rajulu ma ndax góor gi malakun malaaka la am laa wala déet laa noo ndax moom law jaa bu dikkoon malakun malaaka la kaana kon mu nekk rajulun di góor wala la bas naa dinañ lënt la alim ci ñoom maa yel bi soon lënt na fa ñoom de kon laa bu du mën a ñàkk ay yaqaam mu tàbbi lab suñ sikk maanaam lënt la lënt ci ñoom moo di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbiram lënt na ci ñoom xamuñ maqaamaam banaan yellanti eh, eh, koon yàlla yebal ngir ñu mën koo gëm mu dëggal muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne bu malaaka ñëwoon ni di ko dëggal góor lay doon te su boobaa ba léegi da ngeen naan malaaka ñëwut ndax ñu nit lañ gis waaw ba léegi yéen ngi def seen sikki ko laa ji wane na ku yàlla jubal rek moo mën a jub ndax yàlla ma naan di lu rëy te nit ñi duñ ko xam ndax ñoom la ñuy gis ak lañ xam waaw wute nag la nekk rek laa wax de laa yi ju ñu la maqaama xulafaa yi loolu nag ñeneen laa wax ak wala qad istuuziya xejjeef nañ bi rusulin ci yonentu min qabli ka njëkk la yàlla ne bi sallallahu alayhi wa sallam daañ ñaawal ay yonentu njëkk la de banu aadama doomu aadama yi fiim am na ci ñoom malaayikatun ay malaaka am na doom aadama yoo xam ne ñu ngi dox ci kaw suuf fekk malaaka rek lañ laa de al insaanu doomu aadama xuliqa bind nañ fii ci moom qaabiliyatun lu ko mën a def li an yakuna mu nekk seytaanan di seytaane am na lu mën a def doomu aadama muy seytaane wa fii nekk na ci qaabiliyatun lu ko mën a def li an yakuna mu nekk bayimatan di bàyyima wa fii nekk na ci qaabiliyatun lu ko mën a def li an yakuna mu nekk sabun di ndog mentu wa nekk na ci qaabiliyatun lu ko mën a def li an mu nekk malakan di malaaka iza jaada bu jaateeg nafsu bakkanam wa taxaraa mu laabal ko war daa mu delloo bakkan bi la asliha ci cosaanam yakunu dana nekk moom doomu aadama boobu min jinsil malaayikati bokk ci xeeti malaaka yi nit la waaye malaaka la doomu nag bu toppee banneexu bakkanam di yàq rek ci kaw suuf kooku bàyyi ma la bàyyi may seen bànneex lañ xam bu toppe meram di fàdd di reye kooku ndog mentu la ndog mentu yu fàdde rek lañ fi nekkee bu toppee ay pexe ak ay plan yu yàqal doomu aadama yi kooku seytaane la seytaane pexe rek la fi nekk rek la ama de faysan kon law jaa bu dikkoon malakun malaaka la jaa dina dikk rajulan di góor gu baax te su boobaa da ngeen des seen lënt ga de laa juree googu wala qad istuusiya yejji nañu bi rasulin ci ay yonent min qabli ka njëkkale yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam faaqa mu daal di wàcci billazina ci nga xam ne saqiroo yee nañu minum ci yonent yi maa la nga xam ne kaanoo nekkoon nañ station di yegg ci bii ci moom waaye ñi doon ñaawal yonent yi di leen wax lu bon musibaam lañ loon def wàcc na seen kaw yàlla alak leen de fakk daanaka nii yaxiqu lay wàccee man istasa ci yegg bi ka ci yow yow it ñaawal fii rek la ñuy mujj muy alkandu alko alko rek de ñu jiitu ñu ne ñu alko ñoom it noonu la <coughs> yàlla ñetti mbindeef rek la bind mosul bind ñeenteel mbindeef bu andi dëgg ak ñu ko dëggal waaw ak ñu ko weddi ñii rek ñoo mos am ci kaw suuf waaw ba pencam yàlla ñi ñooy baamu mbindeef bu andi dëgg ak ñu ko dëggal ak ñu ko weddi ñetti mbindeef rek moo mos di am ci kaw suuf rek laa wax de ñëpp bu kooku moom jub na rek bu ngeen ko gëmee soppeeb yàlla la bu ngeen ko gëmul ñooñu texe nañ yàlla gërëm na de ña weddi nag. xal ku rek la ñu mujj waa ñëwe di dëgg nag saa su nekk rek danañ ñuroo mbooloo ma leen jiitoon ña jiitoon dañ doon yejj yonent yi naan leen ay xërëm la ñeen di waaw di leen ñaawal waa di wax lu bon ci ñoom di sukkaloo nit ñi ci ñoom ba léegi ñuy weddi nit ñu baax ñi dañ leen di ñaawal di wax lu bon ci ñoom di sukkaloo nit ñi ci ñoom naan ay xërëm la di wala kii jabar rek laa wax de démbay tay te du mos a soppeeku àddina noonu lay demee ba pencam yàlla rek laa wax de kul <clears throat> waxal siiroo dox leen filaade suuf su man zuru topp xool leen kayfa kaana naka la mujjee aqibatul mukazibina mujje koy weddi arusula yonent yi min halaakim te mooy nañ alkoole yàlla ne dox leen ci kaw suuf ngeen xool ñëwee doon yonent yi nañ mujjee te mooy ñoom ñëpp alku nañ qul waxal liman maa fi samaawaati ku moom li nekk ci asamaani juróom-ñaar walaat ak suufi juróom-ñaar qul waxal lillaahi ñeel na yàlla de laa jawaaba déet ak benn tontu xeyroo bu dul loolu li nekk ci asamaan ak suuf yàlla rek ko moom kata ba dogal na moom yàlla xadaa dogal na alaa nafsi ci boppam rahmata yéen mande wala nga ne kata ba waral na alaa nafsi ci boppam rahmata yéen mande de yàlla bind na xeer yi bind xalima gi bind daa ba yàlla bindee xalima gi bind daa gi daf ne xalima gi bindal xeetu yonent ku def lu baax yàlla dugal aljana ku def lu bon yàlla dugal safara xalima gi bind di bind loolu ci xeet ba ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalima gi bëgg a bind xeetu muhammad sallallahu alayhi wa ku def lu baax yàlla dugal aljana ku def lu bon yàlla mbugal ba xalima gi bëggee bind loolu yàlla ne ko taadab yaa xalamu yarul amal teggin yow big bi kooku sama xeetu soppe bu ci bind loolu xalima gi tiit waaw lox ba xar rek la wax de foofu la jaaree xalima balaa mën a bind rek faw nga xar ko waaw looloo ko waral mu ne ko lu may bind mu ne ko bind ummatun musnibatun wa rabbun xafuurun xeet la woo xam ne xeet bu bëri bakkaar la waaye borom bu mën a jéggale lañu am seen bakkaar lu muy bëri bëri yàlla dana ko baal waaw yàlla waral na ci boppam ne moom foo mu yërëm xeet yonent bi sallallahu alayhi wa loolu moom dara waru ko waaye loolu moom war na ko kataba waral na ala nafsi ci boppam rahmata yéen mande fadlan ngëneel minu bu tukkee ci moom ba fii nekk na ci talattufan ak ñeewante fii duwaayam ci oo leen ilay jëm ci gëm yàlla kon yàlla bëgg ñu gëm ndax war na ne daf leen war a yërëm waaw kon buñ ko gëmee rek mu teral leen de leen maanakum dana mu dajale ilaa yawmil qiyaamati ci bis penc li yu jaar ci kum ngir mu fay leen dekk ngoogu foo am woy njëkk ak woy mujj yëpp la yàlla wax qul inna al awwalina wal axirina lamajmuuna ilaa miqaati yawmin maalumin ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñëpp yàlla dana leen dajale bis penc pour fay leen laa rayba ba rek déet xet sikk fii di ci nekk allazina ñi nga xam ne xasiroo pertaan lañ anfusum bopp seen foofu ñoom laa yominoon duñ gëm de ñi nga xam ne perte nañ dañoo pertal seen bopp ci bañ a topp yàlla ak yonentoom ñooñu moom gëmuñ bis penc waa kon ku perte rek mooy weddi dajeeg bis penc bis penc daal foo mu am dafa nit ñi dajaloo dégg nga ñëpp danañ dee ndoor yàlla dekkil ñëpp ci pencam yàlla dajale leen de waaw loolu ku ko weddi rek da gëmut إن أريد الإسلام ما استطعت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته